li ma xalaat mooy que ne am na ay postes yoo xam ne mérité na ñu def appel à candidature mais lu ci ëpp soxlawul ñu def appel à candidature parce que mbir mi dafa jàmp liggéey bi dafa tar dañ war a jëm ci liggéey donc dañu war a ràññee lan moo soxla ñu def appel à candidature bu fekkee ne ay postes yoo xam ne enjeu bu foor la par exemple poste ndox ki ngay confier ndoxu réew mi kooku dafa war a nekk nit koo xam ne dafa sell ci ci liggéeyam nit koo xam xam-xamam dafa màcc ci mbir mi donc yooyu mun nga def appel à candidature mais yenn poste de direction yu ndaw ndawaan yi je pense que ñoom mun nañ saytu rek ñu xool xam nañ sénégalais bi mun liggéey xam nañ sénégalais bi nekk patriote xam nañ sénégalais bi honnête ñu confier ko ko ñu jëm ci liggéey bi mais bu ñu perte temps parce que gouvernement la booy diriger da nga war a xam lan mooy enjeu yi du nekk rek de lépp danga koy jël de façon général utiliser même procédure bi pour dem